yaakaar yi ñuy ci Thiès Info ak euh, Thiès TV toujours une émission Thiès Buzz tay Thiès Buzz dafa doxantu ba fi nga xamante ne moom euh, atelier bi nga xam ne fii la Krasik ne Krasik nag li muy def ci aar la yëngu artiste le mais dañ koy bàyyi mu wax ñu moom mooy kan ci présentation am euh, Kras salaamaaleykum. maaleykum salaam Diop ñu ngi siyaar bu baax a baax di nuyu waa Sénégal. di nuyu waa Thiès di nuyu waa Africa and respect for everybody. Euh, euh, dañu bëgg rek nga wax ñu tur bi sa tur état civil. waaw man sama tur état civil. Mm. te nga bàyyi ma leb ko rek. gaa yi non non na gaa yi jàpp Kara Zik bi rek. non Kara Zik bi day doon voilà Kara Zik euh, ci ban milieu ngay évoluer hip hop arène musique mbalax reggae. bon j'évolue dans la musique en général mais c'est début. ci groupe de rap là nek ba légui ma ngi fa muy ñu bari xam nañ ko bon groupe bi j'ai choisi à carrière solo ce qui m'a permis d'avoir sorti un single dans le volet du reggae mais il y a d'autres styles yo xamante maintenant ici. bon y ko def ko comme genre acoustique genre jazz genre gospel et parmi tant d'autres styles musicaux quoi voilà euh, musique. bon question Bobou. Bon, ma je vais de ma xam parce que c'est ma famille remontée. remonter à amul pas ku ci def musique quoi comprendre la raison pour laquelle single bi j'ai posé une question tell me why I'm the chosen one je parle avec la musique. Et c'est une question que j'ai posée. Pourquoi la musique m'a choisi parmi des milliers d'hommes donc c'est une question sans réponse et voilà quoi. Euh, voilà est-ce que yo da ngay participer ci ay événements national la yoo xam na ñuy organiser fii ci biir euh, Sénégal rawatina ci Thiès. waaw euh, événements yi ñuy organiser bëri na ci yo xamante ni si jot ci participer comme aussi amna na yenn yoo xamante ci si bon participer boobu ma ci quoi waaw loolu nak mom bon. mu koy teg ci loxol suñu boroom rek quoi. voilà mais naka ngay dundee aar bi en tant bon. art bi mom dam koy vivre naturellement quoi xam nga à maintenir ni si naturel la ci man donc bon, koy laaj nu ma koy dundé ça revient ci question précédente bi pourquoi je l'ai choisi ou bien pourquoi la musique m'a choisi pourquoi l'art m'a choisi je sais pas donc je vis ça naturellement quoi. mais est-ce que y a ciy dund maanaam euh, les retombées tay yaa ngi sa bopp financièrement. Wow. ñu nekkal ñu ci gis seen bopp. waaw xam nga. balaa muy ci aspect bi nga xamante ni si koy laal diko daj damay sant parce que maa ko bëgg di ko def donc bu ma amee leneen loo xamante ni si xéewal la gu ma ci fekk si ak cant la mais damay profité waxaale comme quoi que ni milieu artistique non lii njëkk mooy yow yaay investir ci ci ci ci li ngay def quoi. ëllëg nag lu la ci fekk rek nga xam ne loolu nga ci mérito quoi mais def naa ni ci milieu art ak sport amul lenn loo xamante ni si di nga ko ci jëf. te mu nar a naax saa yi boo ko joxee àqam jox ko gëddëm ah ala kulli àll bu la borom bi mayee yàgg ak wér ah xéwal yi dina saawaan quoi. Euh, agenda culturel bu Thiès est-ce que yéen euh, yéen a ngi ci imprégné wu ba nga xamante ne lépp lu am rek yéen a ngi ci biir ba li ñu mel ni tey euh, vacances yi ñuy wax. waaw xam nga agenda culturel boo ko waxee bon. y na ci ay jamono on se posait la question agenda culturel c'est quoi c'est une question qu'on se pose comprendre actuellement peut-être que les gens ngi ci commencé à ci faire ah, ainsi de suite ainsi de suite mais euh, activité nous, faut dafa xaw région dafa te des fois de comprendre naka ak la des fois am na ay nit yoo xam ne dinañ jóg bëgg a organiser teg ay affaire mais des fois day metti yi des fois day metti ba gars yi dañuy mujjee xaddi jafe-jafe yi jafe-jafe yi non bëri na mhm. defaa nit dina bëgg parce que góor jàpp ci góor rek mooy tax dara sampo yaa ngi dégg man loolu lu ma gëm la quoi des fois nga dem ci ay nit tamit ñi nga xam ne ñooy suñu ñi nga xamante ni si ñoom la ñuy wax autorité yi te ñu nekk fii ci dëkk bi des fois bon, pour je vais le dire hein, franchement, quoi, pour des clivages politiques, pour des problèmes politiques, yo xamné ñun population oui on n'est ni concerné de près ou de loin, mais nous pouvons que subir. Tu vois, nous pouvons que subir. Raison pour laquelle des fois a festivités, affaire, affaires y a une pièce.

Dakar à Thiès Thiès pour moi, c'est un autre quartier de Dakar quoi 70 km. franchement les Dakar war na Thiès ainsi de suite Sénégal donc voilà jafe fait, des fille, des fois la plupart c'est des problèmes y clivage politique nous les artistes on pour les alors que Nous, nous, nous, nous, quoi nous, nous, aussi nous, nous, nous, nous mais la plupart départ day centre culturel bi ñu ngi fi gor gor lu di jappalé artistes yi bu baax mairie bi ak maire bu bes bi ñu am ni muy je le dis carrément artistes au niveau culturel Thiès am nañ chance quoi parce que mom daf koy dund quoi comme nga personnellement j'ai parlé avec lui et je sais que ni bon yag na ko gis ci ay affaire ak yooyu nonu quoi donc bon step by step quoi affaire on mi ngi quoi voilà Kara ñu bëggoon a demee ñu benn benn benn benn son xam nga doomu en entier mais en quelque non son bon je vais dire about about politics parce que am na benn benn son boo xam ne c'est about politics maanaam politruand ce qui se passe. maanaam fal leen ma fal leen ma ak kaañu fal la ban moo gën ma ne kooko ci laaj yow du la tontu fal nañ la falu nga fale nga ñu du lu ma gëm nde yittey askan wi xëyuloo ci ba ci gontu lii de mënta wëy te du mën a wëy lii de mënta wëy te waruta wëy dàqal fenn dañ lay fay waxatu dëgg duñu la may fenn foo yakee sa nàkk tam la dëmm tong tong alalu réew mi jaay la mbong eh xam nga ne lii mënta wëy voilà très bien travaux beaucoup jàll na mais tey dañuy gis ni euh, bëri na ñoo xam dañuy wax ay a dañuy gis arcos manam théâtre kat yi yëpp dajale ci ben ben association est-ce que loolu am na ci milieu bon ci milieu milieu bi am ci parce qu'il y a Art que je salue au passage ñu ngi fait euh, un excellent boulot Il y a aussi réseau de culture urbaine. bi nga xamante ici si man membre la ci ak daudo Mar Papa nya leader que je salue de passage comme nga gaay ñi ngi former ay structure di ci nek quoi xam nga ñi ngi lu di tek ay affaire di ko jaayante comprendre nga donc yoy yep mi ngi juddu ndànk step by step amon na yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen comprendre nga mais yoon bi mo metti quoi yoon bi mo metti quoi beug rek mo la ci bayyi quoi comprendre nga mo tax nga mën am euleuk lo ci mënti am quoi. karazi est ce que am na musique. waaw avant musique man jang na école bima baye école salon de coiffure la la la la la am comme liggéey ça fait presque plus de 8 ans maa ici donc ma ngi sante yalla ñaanuma kenn soxlaaluma kenn iñaanewuma kenn voilà quoi saco may dal moy ñu jamm saco de deug de voilà le dernier mot ah le dernier mot ci big respect to Thiès the big respect to Sénégal the big respect around the world di wax ne aussi tamit waa Thiès ma Sénégal parce que avec le single que j'ai sorti le 25 juillet, le 25 août, plus de 50 000 vues sur Facebook. Il y a plus de 5 sites internet qui l'ont repris. Donc, par le biais des gens qui ont maintenu ici, donc respect à eux, des siar des big up quoi. Et big shout out à Chambre 9 Record, DJ Crazy. Parce que mon ngi fi di job job nice structure yi fi nekk ñun Nous Nous quoi ñun parce que ñun nous leen mën a euh, teewal représenter leen ñun fu ñu artiste bi maintenant mën nañ ko gis petit moom ci kaw mais y a une y a une équipe qui est derrière. et staff bi All Kimay Team la tudd quoi le staff de Karazik c'est All Kimay Team madame A L K I M Y muy alhamdulilahi lazi xalamal insana malam yaalam Santina Burbi, yalla mom ni ma xamal luma xamul won respect. un mot à Info. Wow, chess Info big respect big respect à Thiès Info parce que amoon na jamono yele ma gis gën jël suñu ben rak bu jambar, bu ñuy wax phonétique def ko à la une dama content quoi te depuis lors je me suis senti xam concerné par li Info du def ba tey jii nii suñu borom dogal waa Thiès Info nous sant ñëw seet si ma donc. jaaraama yéen jokkoo njal voilà ñu ciy jàllale message bi rek di wax képp kuy artiste nga nekk fii ci Thiès wala nekk feneen na nga préparé Thiès Info dina la fekk si ci biir émission Thiès Buzz di leen jox dig daje ci benn numéro incha allah